الحمد لله الكريم ذي المنن على اشتغالي بفروض وسنن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 xamee woon ñu doole ñu doole ci tey gëstu diina ji daral gan gu mat gan di euh, oustaz Mbaye Ndiaye di jàngale fële ci Touba Firdawsi euh, tey moom la ñu dalal laataa ñuy dugg ci ponk bi nga xam ne rek moom la ñu bëgg waxtaanee euh, ñu bàyyi suñu gan mu ak ñi nga xam ne ñoo koy topp ci site bii di 24actu. aouzu billah bismillah inna waliyallah nawwir fuaadi sax sadri wajal jihaadiya kañam badri soxna Ndeye Astou la ñu ngi lay siyaar baax di la jaajëfal di am contentement baax ci invité gi ñu invité tey ci sig bi ñuy wax 24 actu yi di jaajëfal mboolem personnel bi ne ci kër gi yëpp rek. Euh, jërëjëf euh, Oustaz Mbaye euh, ci nuyu bu am solo boobu macha allah comme li ngeen ko waxee woon nekk tey gëstu dina ji indi thème bu am solo muy thème bi nga xamante ni mooy tabaski ak li ci aju ndax ku ci nekk xam na ne dën mën nañ tabaski ku ci nekk xam na ne tabaski am na mu war ku ci nekk xam na ne tabaski am na tamit xar yoo xamante ni moom la ñu taamu pour tabaskeeku waaye tamit ku ci nekk xam na ne tabaski am na sart yoo xam ne war naa mën a daje ci doomu aadama yi ñu ne kii kat ku war a mën a tabaski la moo xam ci ñi nga xam ne am nañ ko moo xam ci ñi nga xamante toll nañ ci lépp rek euh, danañ ko faram fàcce incha allah tey tam bi euh, tabaski la oustaz tey bi ñu bëgg woon a xam euh, tabaski cosaan li fan la sabab fan la sababloo ba tax tey ku nekk rek heure bu jotee nga war koo mën a def oustaz. jërëjëf soxna Ndeye Astou tabaski cosaan li ma ngi commencé ci suñu maam Ibrahim aleyhum salaam Ibrahim nekkan kenn ci yonent yi nga xam ni alxuraan tudd na leen. ba pare itam mu boole leen ci ulu asmi juróomi yonent yi mu gën a fonk ci alquranu karim wa is axasna min annabiyina misaqahum wa minka wa min nuuhin wa ibrahima wa muusa kon gis nga ko ñëw na ci alquran bokk ci juróom yonent yi nga xam ne moom yàlla tànn xam ñoo ci gën ibrahima moom amoon jenn doom ju ñuy wax ismail ci gàttal sunu borom subhanahu wa ko yow ibrahim danga war a rendi sa doom ji fekk amaa loolu di am ibrahima dafa am juróom-ñett fukki at te sunu borom muy ko bant mu ñaan yàlla may ma bant sunu borom may ko bant ba bant bi commencé dëgër war a am li mu am ci kartan ci doole ci xel ci expérience Ibrahima yaakaar ni kii moo koy wutu sunu borom ni ko nag sa doom jii dama laa digal nga rey bi mu ko waxee loolu Ibrahima benn bis Ibrahima yeewu ci ay nelaw daal ni yaa bunayya inni ara fil manaami anni asbahu fansur maa saa tara bi ci guddi damaa gént ni dama laa war a rendi noo sa mbir mi waaye nda est bi loolu xewee doom ji ne ko papa ndigal suñu borom yow nii woo man maay def dangaa ni damaa gént suñu borom yi naa la rey ndigal suñu borom a jëfe rek inni ara fil manaami anni ka fanzur maaza taraa mu ne ko if'al maa tu'mar defal liñ la digal waaw sa tajidunii inshaa allah mina saabiriin li la yàlla digal def ko soo ko defee inshaa allah man dinaa bokk ci way muñ yi te martaba bi gën a kawe ci lislaam mooy muñ léegi nag loolu nag sunu borom rafaatale ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xissa bu gudd ndax itam jékkul jëkkër ni ko tabaski roy ci Ibrahima ndax da ko waxal ni ah na nga topp Ibrahima millata Ibrahima xanifa yonent yi bari nan waaye yonent bi ma la topploo mooy Ibrahim loolu yàlla wax Muhammad sallallahu alayhi wa sallam suñu yonent kon loolu moo tax ñu war a mën a tabaski ndax moom la ko yàlla ni na nga ko topp li yonent yi bari bari ñaati junni junni Eh, fukki junni yonantu ak nu ma ko mën a waxee sax ak ñaar eh, junni yonantu ak ñaar téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ah sunu borom roy na ko ci kenn loolu kon day loo xam ni lu lu mat a bàyyi xel la te lu rëy la kon loolu mooy li nga xam ni moo waral ñu tabaski mën naa gën a leer sax incha allah macha allah euh, oustaz xam naa dugg ñu la foofu rek ah. laataa ñuy dugg ci tabaski kan la war oustaz euh, foofu ñu amee fi expérience bu rëy ci hmm. Seydina Ibrahim bi mu waxee Ismaïla ne la suñu borom dafa maa digal ma rend la hmm. loolu naka nga koy comparé ak jamono ji ci kilifa yi tey koo xamante ni exemple géntoon nga daal ne sa doom dama laa war a def nangam ak naka lay war a réagir tey ban dénkaan nga ci def euh, ci ñi nga xam ne ñoom ñooy parents yi waaw kay macha loolu lañ ci war a jàngat jàngat bu rëy ci diggante waajur ak doomam ndax sunu borom subhanahu wa taala dafa wax ci alquran yi wa wasayna al insaan doomu aadama dama koo dénk ñaari waajuram wa wasayna al insaana bi waalidayhi hamalatu ummuhu wahnan alaa wahnin kon yàlla néewul dama laa may dañu astusi la dama laa dénk sa doom ji ki ñu la dénk la ñu la defloo ci moom da ko war a def su ma la dénkal sama doom tey ni la lii laa bëgg ci moom yar jàngal nangam nangam kon dañ ko war a def subhanahu wa taala dafa wax ni yow nga xam ne yaay waajuru doom ji dama la koo dénk mayu ma la ko yàlla néew wa waxam naa wa wasay naa la wax dañu leen a dénk doom nag bu ñu ko dénkee dañ ko war a digal mais ki ñuy digal na nekk kuy dégg nekk lu jafe ci jamono ji tey ci waajur yi ak ci doom yi ci ñaar ñëpp ndax bu dee waajur yi danoo nekkatul place bi ñu war na nekk bu dee doom yi taxawatul place bi war a taxaw xam nga lu tax ma wax loolu mooy waajur yi danoo nekkalatul lislaam nekkalatul diine seen bopp lañ fi nekkal kenn ku ciy jël sa doom xiir ko ci jaamu yàlla xiir ko nargan ko ci gëm yàlla ak bëgg yàlla ak bëgg seexul xadiim amut bareetul ñu néew ñoo koy def léegi dañuy jël seen doom yi xiir leen ci nan lan maa def am xaalis même njàng mi sax njàng njàngum business lañuy jàng léegi njàngum rapide tic tac ah ah ah, ah. ah business mooy ci misaal mhm. njàng moo xam doo jàng ngir jëm yàlla doo jàng ngir sa jëmmi réew dangay ngay jàng ngir business tak tak fexe jàng tuuti jënd diplôme jàngaat tuuti jënd diplôme fexe ñu yóbbu la bitim réew nga jàng tuuti l'extérieur daal di dëlsiwaat nag ci réew mi pour fexe dugg ci ay procès yooyu pour fexe ñoo naxas si askan te loolu du dëgg dëgg mbir mi macha allah oustaz xam naa ñu ngi xaabaabal euh, foofu sax ah. oustaz ñu bëggoon a xam euh, tabaski kan la war ok tabaski subhaanahu wa taala ma ngi ko jaara ci yonante bi sallallahu alayhi wa waral ko ci ñii képp koo xam ni nekk nga ab julit nekk mu kàllaf moo xam góor nga moo xam jigéen nga tabaski war na la. ci yenn sart lañ ko war a defee. tabaski sart yi lii la mooy na nit ki nekk nekkal nit ba pare nga xam ne doo ku dese. doo dof ne koo xam ne itam ah, xele nga boo xam ne ma sóoragoo ku ñaar yi rek la ma sóoral nekkal ko am xel boo ko manee ak man gi. muy tabaski war na la. ak man gi macha ah, ah, ah, allah mm, ak man gi. Euh, ba léegi rek euh, oustaz mu mel nii dañuy wax faral di wax ni am na suñu xamante ne bu fekkente ne benn kër gi. mbooloo mi njaboot bi lu ñu bari bari bari dañoo wax ne benn xar doy na ci tabaski loolu oustaz la nga ciy leeral. waa soxna Astou jërëjëf benn xar dana doy ci bu fekkee ñi ne ci kër gi mënuñu kenn rek a man wala su fekkee ñi ne ci kër gi seen doole bariwut am nga pele droit yëkkati 10 000 francs may ma bu dee may borom kër gi. déedéet doo ma ko jox pour ni nan bokk xar mi déedéet xaru tabaski kenn du ko bokk waaye am nga pele droit pour jël 10 000 ni may naa la koy oustaz sëñ bu baax bi yëkkati 10 000 may ma ki yëkkati 10 may ma ginnaaw may kilifa kër gi léegi man ma xooli am xar ma jënd ko ci biir jënd googu ma jënd xar mi nag tuyaa ba ji dee dem ci yéen ñi nga xam ni participé ngeen ci xar mi même ñu participé wul sax te seen yéene aman matan ko ñooñu itam tuyaa bi day dem ci ñoom waaye oustaz bu fekkee ñi nga xamante ni ci kër gi lañ nekk mata tabaski ba pare tabaski wuñ léegi borom kër gi génn xaalisam jënd xaram ndax tabaski googu day yóbbaale ñee wala ñi nga xam ne am nañ ko te ñu ko tamit ñooñu am ñu tabaski waaw su fekkee borom kër gi moo am xar jëndal ko ba am nga xam ne bi mu jëndee xar mi moom moo am xaalis xay na ñi am nan waaye ñoom lànk nañ defuñu mu bëgg a yóbba fekkee am na yéene yóbbaale leen su ko amee day yóbbaale ñooñu su ko amee fekkee nag ñoom am na ko moom borom kër gi waaye nag ñee mën nañ ko te defuñ ko su boobaa ñoom dañuy am ay daan ki ñu yóbbaale mooy ki mënut ki ñu mooy ki mënut waaye fekkee ñoom mën nan waaye dañoo lànk ne ñun daal duñ tabaski suñ papaay tabaski wala suñu yaay tabaski man li ma yor ko si ne ma koy téye su boobaa da am daani subhaanahu wa taala ndax képp ko man nekk mu kallaf day ab sart ci donte du farata waaye sunna mu akkada la dañu koo feddi te sunna mu akkada digganteem ak farata ma ngi mel ni si diggante ñaari baaraam yi ni bii sute bii diggante boobu rek la macha allah oustaz mu nekk lu am solo ñu la xam naa ñu ngi gën a xabaabal euh, ci tabaski sax waaye tamit euh, ñu bëgg tamit ci yenn anam lañ war a yenn xar euh, ak yenn melokaan la xar yi war a mel pour niñ ko nit ñi war koo mën a tabaski waaw jërëjëf soxna Ndeye Assa yi ñu war a tabaskee kenn ci saxaaba yi dañ koo laaj ne ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xar mi mu tabaskee woon wala yim daa tabaskee nan lay mel mu ni ëpp ci yim daa tabaskee nii la xar mu weex lay doon moo xam ne bët yee day mu koggi bët yee day am tuuti lu ñuul tànkeet am lu ñuul xar moom mooy xar mu gën ci tabaski na doon xar mu weex kog gi bët sa kog gi bët ya am lu ñuul tànkeet am lu ñuul su fekkee mën naa nekk su fekkee mënta nekk mu doon xar mu weex wala xar mu ñuul wala nu mën a mel ci melokaan yëpp waaye mii moo gën nag mi ma la léegi bu bàyyi itam bu mu doon xar moo xam ni day nekk këtt genn genn maanaam mooy moo xam ne genn fa dagg genn bi nag dagg gi nekkul ci ay sart ne bu genn bi daggee rek mënatoo tabaski déedéet dañoo wax ne bu séddalee geen bi ñetti xaaj sulus bu njëkk ba bu fekkee moo ca dagg nga xam ni euh, cat lu njëkk la rek a dagg mu des ñaari su boobaa xar bi mën naa tabaski su fekkee nag ñaari yee mu des benn bi xar bi mënatoo tabaski bu dee nopp bee nag lu ci dagg donte fii leen ko dagg ci ci ci euh, bopp ba nga ci bopp ba dagg nopp bi su boobaa moom xar mi nekkul xar moo xam ni ma dañ koy bàyyi xar mu mën a tabaski la moom nopp ak geen dañoo am lu wute xam nga nopp dafa amul yàpp nopp yàpp néew ci bëriwul yàpp génn nag dañoo wax ni borom xam ne dañoo wax ne am na tuuti yàpp moo tax ñu ni kon bu ci sulus ba bu fekkee li dagg mu ëpp xar mi dootu mën a tabaski su fekkee li des ci xar mi nag mu xar mi mën naa bu dee nopp nag moom su fekkee li dagg ëpp téewul xar mi mën naa tabaski xam la bu dee ci wàllu bët nag ak wàllu tànk waaw bu dee bët yi kasaalika benn bët mu li awar mooy koo xam ne benn bët la am kooku mën a tabaski waaw bu pattee mhm. waaw moom la arab awar alof bi ko wax patt mhm. benn bët su boobaa du mën a tabaski su fekkee dafa gumbe ni patt aussi a tabaski su fekkee dafa gumba gumba xal leen nga xam ne xool bët yi waaye moo tax ñiy jënd xar nañuy seetlu ñoom itam bu baax a baax a baax a baax xar boo koy jënd na nga dem ba àgg ci moom nga jël sa teg ci përum bët yi ba xam ba xam dina xef wala xef su fekkee xef na nga xam ne xar mi ma ñu su mhm. xeful nga cuxur waxuma cuxur comme cuxur yi nag ndax bu dee yenn xar yi yàlla li bind cuxur comme su mbokki màkka yi seen xar yi cuxur la doon waaye cuxur moo xam ne ci misaal làmb nga xool nga ko xam xar mu làmb ndunkur ko gi muy fi fàllara gi nekk mu leer na ni kii amul ci yàpp lépp der la lépp kii la kooko tam du man tabaski ak xar moo tam ñu xam ni itam dafa ba feebar bi leer naññ ku mu room nga xam ne xar mi daa feebar wala xar moo xam ne gémmañ gi dafa am nget xar mu gémmañ ci am xet xar tam mënta tabaski wala xar moo xam itam dafa am góom boo xam ni góomu robaale la xar moom itam du mën a tabaski yooyu yëpp ay kii la yoo xam ni mën nay gën a yaatu sax xay na. macha allah oustaz mu nekk lu am solo ñu bëggoon a xam tamit euh, xar yi nga xamante ne moom la ñuy tabaskee ci ñaata weer lay war a toll wala ñaata at. ah waaw tabaski xam nga dañ koy def ci xar di ko def ci bëy di ko def ci nag di ko def ci gëléem waaye bu dee ci mu bu mu tuuta tuuta tuuta tuut ba yées juróom-benn weer surtout asur waaw juróom weer. foofu la commencé ba ba muy am at ba jëm ñaari at diggante boobu juróom-benn weer ba ba muy am at ba jëm ñaari at waaye bu mu tuuta tuut nag ba manqué juróom-benn weer moom bu dee ci xar bu dee ci bëyee nag na am sanna kaamila at bu mat sëkk nga doog koo commencé rey bu dee euh, euh, naga na am ñaari at sanna tey ni bu fekkee gëlee ma nag na am ñeente at nga doog ko mën a tabaski macha allah oustaz xam naa tamit euh, comme ni ñu ko mën a misaalee si jamono ji ku ne xam na ne euh, Covid 19 bi nekk na loo xamante ni gàllankoor na ci ay liggéey yu baree baree baree léegi ñi nga xamante ne mën nañ ne xool nañ ne xar xaw a manqué ndax l'islam may na leen ñu boole seen xaalis jënd lu mel na nag ngir euh, motali sunna si waa jërëjëf soxna macha allah xam naa loolu njóob yéen a koy def mhm. fa tabaarakallaa di nga soxnaasu mhm. tabaski ab yoon la boo xam ni dooloo ñuy fabriqué comme nga naan man damaa bëgg euh, bokk ak nit def nangam ak nangam ngir du noos dañu ko xam alxuraan da ko waxan xam nga da ngay dégg sax leen suñu mbokki njóobeen ak ñenn ci ñi nga xam ne seen xam-xam dafa des dégg ñu wax ni nit yàlla deret ji la soxla ma leen di déedéet yàlla soxlawu deret de lan yanaal allah luxumuha wala dimaaha walakin yanaaluhu taqwa minkum allahu akbar suñu borom nee na soxlawuma deret ji di ngeen di tuur sama yoon newuti soxlawuma yàpp yii na koy lekk sama yoon newuti ñu ko yàlla loolu soxla ci tabaski mu ni at taqwa minkum loolu ma ci gën a yitteel ragal yàlla gi ngeen war a ragal yàlla ci bu ngeen tëree am tabaski di ko rendi xam ni seen dooma war na tëdd fii ma remplacé leen ko am xar loolu sens gi muy def ci yow nga xam ni mën na laa jeexantal ba déwén mu ne loolu laa soxla ci yéen kon tabaski kenn du ko bokk kenn du ko bokk ci misaal su fekkee nag dem ngaa dema dema dem ba tabaski yu ñëw na ustaas amul xar amul bëy amul nag amul dara mu leer ko ni waa koñ bi ñëpp ñu ngi tabaski te awma lu ma berndeel sama njaboot sañ na maa dem ci buuse bi wala ki nga xam ne mooy jaay yàpp jënd fa ñetti kilos yàpp wala ñaari kilo wala juróomi kilo berndeer sama njaboot waaye nag du ma ko tuddee tabaski xam nga lu ma ko tuddee berndeer sama njaboot du yoolu tabaski waaye nag ñee lekk nañ yàpp yow it sa njaboot lekk nañ yàpp rek lu dul loolu kenn du cotiser tabaski naa damay jënd wala may tong tong aw nag wala may bokk aw nag déedéet. macha allah Ousseyn xam su ñu mbokk yi nga xam ne dañoo sant Cissé wala sant Jaxate wala loo genre yu mel tamit ñu jàpp ne tabaski tabaski la loo xamante ne la ngir lekk yàpp rek la Oustaz loolu tamit man dénkaan ngay def si ñoom. ñu loolu ñu bàyyi ci xel baax a nit ñi ña ngi ña ngi daw ak a ak a dang-dang yi ci loo xam ne jëru ko yàlla xam na ko tabaski xam nga lan laa soxnaas mhm. tabaski lii rek la waa baax ji am na lu mu jënd xar jënd na xar mi yeew na ko bi mu ko yeewoo ci suuru tabaski bi muy fukkeelu faanu sul hijja mooy weeru te mooy bis bi nu war a bi mu ko yeewee yoor yoor jot na ku baax ki dem na julli ji bi mu julli jee ba ñëw imaam xutba na bi mu jullee imaam xutba na ba mu gis imaam rindi wala ñëw na toog këram ba leer ko ni fu mu toll nii moom imaam rindi na ndax loolu tamit day bàyyi xel am na ñoo xam duñ xaar imaam rindi waaye bu ñëwee seen kër toog tuuti xalaat ni imaam fu mu toll nii rendi na ñu doog rendi ba tey loolu baax na su ko defee bu boobaa moom mi bu dee xaram tabaski ga jeex na est-ce que jàppoon tamit gi aada ji aada ju bari ji moo tax mu jafe ci jamono ji moo ñu rey mhm. moo ñu fii at mi toll ci corona yi ñu tudd yëpp moo tax euh, sonn est tabaski ren yii wax naa ko barki lim ci benn émission nee bu fekkee nit ñi xalaatuñ ci dimbali ñi nga xam ni seen loxo jot seen ginnaaw yuuxu dee jub fu ko foogewul ndax sénégalais dafa nit dëkk nit ku am jom li ko xam nga loolu sénégal dafa am jom foo fekk Sénégal day am jom day bëgg bu nit rëndee mu rëndi te dimawul noonu manal defal mënoo bàyyi yi ñu ciy gàllu bi may léegi maa jaar ci marché bi may ñëw da ngay tudd yàlla nit ñi maanaam damay wax ni da ngay yendu marché te tisbaar takkusaan ba timis julli ko ngir laan damay waaje tabaski te moo na kat tabaski moom sunna la yow nga bàyyi ay farata te farata yooyu yàlla mën na ci rëq sa ndigg ëllëg waaw doy waar la ñetti waxtu da nga koy tegale fii ci marché bi ngir jënd bu boobaa ay farata nga bàyyi te euh, ñun bàyyi xel ne julli ci furuudul ahyaan la bokk farata yi gën a màgg nga xam ne ko ko deful yàlla rëq sa ndigg nga bàyyi ko dem ci ay sunna sunna yi lan sunna soo xam ne yow mi nga xam ne yaa ne marsukaa yow doo rawem xar moom ndax jigéen ñi ma fi gis ak ñenn ci ay góor duñu rañe xar léegi nañu topp loolu ñoom ba fa tabarakallah doy na war macha allah oustaz bu ñuy dikkee waate nag mooy ki nga xamante ni oustaz dafa amee bor ba pare war a tabaski ci misaal maam Thierno mii kat maa ko ameel cent mille francs te man kat ci misaal am naa doole joo xam ne war na maa mën a tabaski ma ma yore ko cent mille francs maam Thierno na a naka nga koy comparé li nga wax euh, deesu nit ki bu yoree bar sunu borom dogal mu war a tabaski na dem fay bor ba te bàyyi tabaski loolu mooy yoon bor daa bokk yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu nekkee ci madinatul munawwara bu nu musaa tëral nit ti armeel ci albaqiya mu war koo jullee day gëstu mbooloo mi ni leen ana ay mbokkam ñoom ñëpp ñu taxaw mu ni nañu laaj ba xam kii amee na kenn bor wala kenn amee na ko bor bu ko defee ñu daal di wax su fekkee ameel na ko bor mu leen ni su fekkee amee na kenn bor mu leen ni ana ko mën a fay ci ay mbokkam ku ko mën daal yëkkati loo xam ne maa koy fay mu ne fayal ñu fayal la wax de ko dama koy gàddu fayal su fekkee kooku mën na koo fay fay ko su ko mënta fay mën na ko def sàngam dinaa ko fay yonent bi doo ko nangoo jullee kooku su fekkee di naan am na ko mën a fay ñëpp commencé la baro seen loxo yoon saaai sal dinaa du ma ko jullee kon lu lu garaaw la ku bor kon bu bor taxawee tabaski taxawal fayal sa bor te bàyyi tabaski tabaski macha allah oustaz ni tamit oustaz dafa nekk koo ni rek dafa xaw a zahira ba xaw moom da koy lijjanti rek moom ak anam bu mu ko mën a amee lépp rek ngir bëgg a mut mootali sunna si oustaz bëgg kër oustaz Mbaye Ndiaye mi ñëw dendee kër tabaski na fu ma jaar ba yeew seenum xar te na yàlla yàlla xam anam bañ ko wutee kenn du comprendre léegi nag lépp ngir bëgg mottali sunna si oustaz loolu la nga la nga ci leeral day astu loolu day dugg ci li nga doon wax léegi duggloo mënut li nga ko loo mënut dañoo wax ni def loo xam wax loo xam soo tëddee nelaw waaw waaye doomu aadama su fekkee tey da ngay gis diw def na diw def na diw nii la solo diw nii la def xotti na njabootam jënd na xaram nangam ku koy def rek yaa ngi dugg ci loo xam ni ëllëg di nga toog jooy foo xam ne meenam yow dong yaa ngi wit jooy jooy boobu yi nga ndees xaru tabaski dëgg la su fekkee man mën naa ko su ma ko mënul bëy baax na bëy vingt vingt cinq mille boo ko amee am bëy bu baax mais bu rus ñu ne oustaz Mbaye Ndiaye bëy la rek bu ko rus ndax yàlla dafa dafa dafa dafa maanaam suñu borom bu dara lu diis xool ni mu ko woy fale xar boo ko amul nga jënd xarum tàpp xar mu góor moo gën mu am ay jën su fekkee mënu ko am nga jënd mu tàpp bu fekkee moo amoo njëg googu nga jënd mu jigéen soo ko amul nga jënd ba bu góor soo ko amul noonu la toppee topp ba ba ca nag léegi kay kon ki ko amut nday asu ngir jëmmi yàlla na daal di fexe ba muñ. Mm-hmm. fexe ba muñ oustaz sànq da ngaa wax sa biir wax lu ama am solo mu ci wàllu anam bi nga xamante ni ak heure bi nga xam ne ci lañ war a rendee xar mi mm-hmm. am ñu bëri ñoo xam ne nag ñi sant jaxateeg siisa moo xam naa dañuy yaakamte rek jóge sa jàkka ja ñëw naa rey ah. duñ bàyyi xel ndax imam rey na ma pare wala loolu tamit bëgg nañ nga indi fi ay leeral pour nit ñi tamit gën a bàyyi xel xam ne euh, xar mi nekku ne heure boo ko sentiree rek nga koy rey waaw yonent bi sallallahu alayhi wa lépp da koo leeral yow sondees sallallahu bala ngeen a rey seen xar yi na ngeen bàyyi ba ñu julli ñu ne ko lu tax nga wax loolu yaa rasulullah mu ni képp ku rey sam xar te julli jotut mu ne ah mu yàpp nga am waaye amoo li ñuy wax tabaski waaw am nga nag yàpp woo euh, noose waaye nag amoo tabaski kon na ngeen bàyyi am na fu waxe sax dañ ne yoo xaj la wax na ngeen baamuwaat jëndiwaatu xar rayaat am na fu mu waxee loolu dafa am foo xam dañ amoo tabaski am foo xam dafa wax ni na ngeen waat dem jëndiwaat xar rayaat bu fekkee da ngeen a rey te julleegul kon yàkkamti jëru ko am na ñoo xam ne moom ci ñu sant Jóob ñu ci bari ma koy seetlu léegi xaaratul xutba xutba moom léegi daanaka damay faral di wax ne daanaka bu dul ñenn ñi yàlla dafa ñu am fasaatul kalaam nga xam mën na wax ba gars yi sawar pour déglu leen du jar sax ñoom seen xutba di yàgg ndax euh, gars yi du xaar kon fa tabaarakalaa ñoom itam nañuy bàyyi xel ñoom imaam yi am fasaaxa bu ñu amul fasaaxa itam ñuy gàttal seen xutba rek pour gars yi mën a teel a euh, def kii jërëjëf Oustaz leeral rek ñu dikk ñu pour jeexal ñu dikk ci euh, julli julli nga xam ne mooy julli tabaski gi mm-hmm. ndax mën nañoo xam ci ñaata raaka lay nekk ak kayfiye bi naka lañ koy defee mm-hmm. waaw loolu itam mat naa bàyyi xel ndax ñu baree baree baree dañ ko dul bàyyi xel te muy lu mat a bàyyi xel ci diggante kii julli ji ak kii toog waaw ndax itam mm-hmm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ci am lu bari dam ci leeral dana wax bu ni julli ji bu ñu demee ba àgg ci kaay ba ci bayaal nag moo gën bayaal waaw waaw fu yaatu mm-hmm. su fekkee mën naa nekk su mënta nekk ñu ci jàkka wala juma mm-hmm. waaye su mënee nekk nag ci bayaal lañ koy defee mm-hmm. ko defee ci bayaal imaam ñëw julli ñaar rakka bu njëkk bi mu kàbbar juróom-ñaari kàbbar bi ci topp juróom benn te euh, euh, juróomi kàbbar ak bu kàbbaru jógaale bi bu ko defee bu jàngee aw saar yoonu saala sal waxam na ni moom mu ngi daan jàng suratu ala muy sabisma moom mu tëpp lépp lu mu daan jàng mhm. waaw deuxième raakaay mu jàng euh, walay li isa sa wala euh, wasamaay yi mhm. am nañu wax ni moom la daa tari ci deuxième raakaay bi mhm. lu ci mën a xew su ko defee fu fekkee ba yàlla boo ñëwee jëru ngay def li ñuy wax taxiyatu masjid su fekkee ci biir jàkkale nag boo ñëwee da nga def taxiyatu masjid insha allahu rabbi moom itam lu ko wuuteeg julli àjjuma mooy imaam a xutba bu dee julli àjjuma nag imaam day a julli waaw ah, dañuy julli ba pare soog a xutba bu boobaa itam dañoo wax ni kii xutba ki jiite mën naa xutba ki jiite mën naa xutba mais fu amee ngant mën naa jox keneen sax mu xutbul ko te loolu mën amul ci àjjuma est-ce que xam nga li ma mhm. mën naa xutba mhm. waaye su amee ngant sax mën naa jox keneen mu xutbal ko bu dee julli ita ah bu dee ita bu amee ngant nag la wax mhm. waaye bu dee julli àjjuma ki jiite rek mooy sañ a xutba macha allah oustaz xam naa rek ñëw ci dernière question bi yéen lan lañ ci sopp ci bisu tabaski waaw bisu tabaski nag yi ci sopp bari na moom sopp nan euh, nga jóg siyaare ji ñoo xam ni say wëlëre lan say dëkkandoo lan say am di jàmm lan ñi nga bokkal koñ bi ñu nga bokkal gox bi ak itam booy dem booy julli ji mbedd bi ngay jaar booy dem boo dëppee bul jaar ci mbedd boobu jaaroo ci beneen mbedd. Ah, ah, ah, ci sa biir kër waaw ndax itam yu baree bëri war na cee mën a faju mhm. ndax damay faral di wax ni léeg-léeg ngay nit ñi nday la fekk ama nan maa yow ay digg yu xaw a kii mhm. muy baal ma àq ma la nga ma ni baal naa la mhm. te fekk li suñu xol loolu loolu amul sens bu bis ba jotee lu ma musa ne jàpp rek ci suñu diggante naa yónnee baal ma àq te yàlla tax nga baal ma yow itam ci li nga jàppoon boo ko defee bari na ay ay ay kii waaye tëx ni a ndokkeel dem ci soppe yi ak fon man di nekk place yi nga xam itam boo jóyee julli ji fi ngay jaar boo rëppee nga jaar beneen yoon ndax yoonu sala sam noonu la ko daa doxale pour te lépp nag ñu def ko ngir jëm yàlla te bañ a puukaru bañ a bañ a bañ a wanante pour li nga sol ni ko war a wan nit ñi mm-hmm. am na yoo xam ne li ñu sol rek ci leen wane nit ñi pour man tey dem naa sexaw ga bu suba maa dem teeno maam seex bu suba maa pour wan jas ne bii laa xotti lii laa xotti ñaari jas ne yooyu amul sens mm-hmm. li am sens mooy attaqwa ragal yàlla ndax yoonu sala sam fii la ko waxoon kat fa tazawwadu fa inna xayra saadi taqwa ci tabaski la ko waxoon ne mën nañu dañoo jël tabaski rek yenn ko am ci ñoo xam ne tamit dañuy jël lu mel xarum 500000 wala 1 million di ko tabaski te am na seen ko ñoo xamante ni tamit euh, la yàlla xam doy na bu añee du reer ñàkk xam rek leen dal mhm. ñàkk xam rek damay faral di wax ni 1 million boo ko yoree mën nga cee jënd ay xar yu bari bari xari 100000 100000 100000 wala 50000 50000 bu ko defee itam yàlla fay la di nga borom alal ju dépassé wul ci alalam sunu borom nee na ëllëg damay jël aw feer woo xam ni alal ja lay doon alal ja la ñuy def mu ne composé mu nekk aw feer alal ji nga waroon moo ne composé mu nekk feer yàlla ne ma di ko paase ci seen ginnaaw yi ak seen dënn yi ak seen biir yi ak seen wet kon borom alal yi lii profité woo leen ci nee naa leen la boo xam ne ku ko incha allah rabbi jërëtu ay naafila borom alal ay seg lay naafila du naafila sama classe gi amul dara ñun ñoo war di sëgg guddi ak bëccëg di naafila mais borom alal ay sëg lay naafila mbokk yi di sant baax a baax a baax a baax nday as yow mi nu dalalan ak kilifa yi fekk kër gi ñoom ñëpp rek suñu mbokki cameraman yi ak ñoom ñëpp rek kilifa gi ñu ngi leen di jaajëfal di leen euh, masaw te itam di jéggulu ndax doomu aadama léeg mu bëgg a wax xaaye xëy na la ngay bëgg a wax làmmañu mën naa fëlati wax na leen mhm. bu ko defee itam dañuy jéggulu rek di jaajëfal ñëpp tey wax ni buñ ci yaanu luñ mënut mhm. buñ ci teg su bopp luñ attanut mhm. benn bis rek la képp ku ci gàll sa bopp loo attanut bis bu ñu jullee ba takkusaan nga war a tëdd sablal war a fanaan da nga réccu kon jërëjëf soxna Ndees euh, macha allah yi nga xam ne yombalal nañu ko ci jotaay bi ah, di Thierno ak euh, Modou Diouf beaucoup waaye itam di sant Cheikh mi nga xam ne moom mooy jàpp ci montage bi bu ngeen gisee montage bi bi yem rek mën nañ ne ci moom la ñu ngi koy jaajëfal bu baax di leen wax ne bu leen fàttali di abonné suñu site bi di 24 actu di leen jox dig daje euh, beneen émission beneen thème waaye itam beneen invité wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu alhamdulillahi alkarim silminan ala ishtighali bi furudin wa sunan